on ne voit pas la jeunesse vers ça. <laughs> parce que peut-être la jeunesse est dans autre chose. ils sont ils elle dans autre chose que dans dans l'industrialisation ñoom suñu suñu sañoon dañuy yor seen benn ñaari laadum ñetti laadum ne yor ko seen biir kër. tabaski jot ñu tabaski jot ñu jaay ko mu jeex après. ñu reprendre après ñu dencaat ba xaaraat tabaski encore. c'est-à-dire l'esprit d'entrepreneuriat la ñu dugalul dans la tête de cette jeunesse sénégalaise la hmm. ba pare ils ont ce problème là. de xam fan la ñuy dem pour mun a recevoir les financements ça aussi c'est un problème hmm. les mécanismes qui son mis en les qui sont mis en place par l'ancien gouvernement pour accompagner la jeunesse da ngay gis toog jeune bu ne la xaw ma fu mu nekk je ne sais pas comment ça se passe wala affaire bi c'est purement politique politiciens yi lañ koy jox hmm. parce que mooy entendement ak croyance bi nga xam ne moom lañu am par rapport au mécanisme posé mettre mis par l'État du Sénégal hmm. il faut qu'on aille vers le changement de mentalité il faut qu'on aille vers une rupture totale sur la manière de voir et la manière de faire pour mhm. régler la question mhm. de ce pays-là parce que mënoo nekk ci réew boo xamante ni fan la mën a jaar pour mën a régler ses problèmes mhm. mënoo ci réew boo xamante ni espace yi fi ne dafa énorme te la communauté qui est sur place ñu ko utiliser il faut qu'on aille vers l'arrêt de l'accaparement de l'agriculture industrielle par les gros euh, les les ñi am moyen. les agriculteurs du dimanche. les agriculteurs Comment du c'est-à-dire il faut que <laughs> loolu mu arrêté il faut donner la chance aux jeunes qui veulent aller vers l'agriculture qui veulent investir vers l'agriculture. Hmm. parce que développement bi foofu la nekk. si la demande est supérieure à l'offre. c'est ça le problème. baisse de prix mënul am. Hmm. mais est-ce si que mais bien sûr la demande est très supérieure à l'offre. loolu tax atteindre ñu loppi euh, nu mu sobal nu mu tuddati l'autosuffisance en alimentaire. Hmm. parce que la consommation risicole dans ce pays la mais moo ëpp li ñuy produire. Hmm. donc la demande est supérieure à l'offre. puisque la demande est supérieure à l'offre nous ne pouvons pas les prix ne peuvent pas baisser. et c'est ça la réalité mm. pour que maintenant nu renverser balance bi il faut qu'on accepte d'aller de, de retourner vers notre agriculture et de moderniser tous les secteurs mais hmm. accepter état bi wax ak askanu Sénégal ne leen la communauté l'impliquer leen dans les réflexions parce que gox ba ca ne nag gis nga sa gox bee nga dëkk. Hmm. yow yaa xam la ca war. ah eh, lan la ca war suñ la ca boolewul suñ ko fa bëggee def. Hmm. parce que y a de ces yoo xamante ni te am nañ ndox am nañ courant mais soxla nañ leneen lu dul la lañ fa def. ah Kër Masar gën ñu nekk de ñun moom soxla nañ taxawaat bu baax balaa inondation yi di ñëwaat. voilà donc. voici des choses ngi ñëw foofu tali yow na mu meloon noonu lañ ko bàyyi ba tey. voilà place yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy inondé. donc même chose. munoo munoo def dara Kër Masar te doo ci wax ak. waa Kër Masar doo leen ci impliqué. c'est pas possible c'est pas parce que tu as la maire le développement doit doit être local avant d'être national. Hmm. il faut impliquer la jeunesse les populations qui sont dans la dans la réflexion qui sont dans les localités dans la réflexion pour ñu jox la les orientations mais foofu je pense que rupture du fara war a am maintenant les actes qui sont posés sont à saluer il faut l'accepter mmh. maintenant inculquer le Sénégalais à ce que mu nangu le culte du travail mm-hmm. parce que liggéey du seulement le travail salarial bi nga xam ne fin du mois rek nga koy jot il faut que ñu def ko ci bopp jeunesse bi aussi. def ci bopp jeunesse bi nga xam ne ñooy jël gaal yi parce que wax nga ko sànq que mën nga toog fii réussir. comme mën nga dem ba a bañ a réussir mais il faut faire bi à cette jeunesse là ñu gëm ni terre suuf si nga xam ni am nañ ko seen gox. suñ ko soxlaa pour béy état bi dina leen mën a accompagner. suñu mm-hmm. soxlaa matériel agricole état bi dina leen suñu soxlaa moderniser bi dina leen accompagner. Mm-hmm. parce que nous n'avons pas un état un état riche bu nga xam ne mën na accompagner ñëpp mais mën nañ am un état boo xamante ne mën na accompagner les populations yi nga xam ne ñoo ngi nekk à l'intérieur du Sénégal. Mm-hmm. parce que suñu mbéy mii ko suqali woon. Ah. mën nañ ko dundee. suñu napp gii suñ ko suqali woon du ñu jéggaani fenn. suñu euh, sàmm gi suñ ko suqali woon. tabaski du jot. ba ñu naan dañuy dem Mauritanie on a tout ce qu'il dans ce pays. on dans ce pays.